Abonnez-vous, vivez, Dakar Instant, en live. L'actualité à l'instant, c'est sur Dakar Instant. lañu nemmeeku fii ci Liberté 4 kii Ibrahima Khalil Niang mom la ñu agressé alxames bi ñu génn ca Tambacounda biñ koy agressé dañ ko fekk mu crevé di défar pneu otom 5 personnes fekk ko fa jël ci mom 31000 jël portable tamit daal di koy toj waa këram am naqar ak tiis lool biñ yëgee mbir mi. waa Dakar instant ñu ngi bokk a yéen naqar bi di leen masawu bu baax a baax. ñun tamit ñu ngi delloo naqar bi ñëpp la ndax ku doon sa doom tamit doomu ñëpp la daal Sénégal moom moo yàqu léegi ndax yàlla rayatul yàlla moom rayatul nit ñee rey wan bu ñu woon ku rey nu rey la kon lii du fi am. ndax nit ku di daani doolom pour andi si famille dëkk ak dëkk mutum rànk fe nu rey ko njabootam yi jabaram xale bu tuuti ak ñaari doomam metti na metti na dañuy ñaan nag gouvernement bi na jóg ndax bu jógulee ba peuple bi jóg di fay fayal seen bopp dina metti ndax bu fekkee ne ku nu rey nu jàppale rey la lii dootul amati waaw dañuy ñaan nag yàlla tax jàppale nu ba ki ko def lii nu feeñ waaw loolu rek ñu gis waaw kenn koor bi ñëw na Ibrahima ñëw na koor baa ngi ne nu ngi ko bëgg suul ñuy wax ay autopsie lu nekk nu wax ko sonal nu rekk ndax tamit bu ñu joxoon koor bi rek suul nañu ba pare waaw. ñun yëpp yi daf noo metti ndax Ibrahima suñu Ibrahima la Ibrahima ñëpp la xale bu yaru bu baax bu am teggin léegi ne na gouvernement bi la ñuy ñaan. fii réewu jullit la ku rey noonu la rey ndax xale bu tuuti yore jabaram ak doomu dem di daanu dooleem ay samba booy jóge fële ñëw def ko lan koy def nangu xaalisam nangu jël portable am teg dóor ko jaasi ah. 31 000 li jël ci moom jël portable toj ko ah ba pare dóor ko jaasi ci bopp xam nga loolu metti na de ah? metti na fu metti yam ñun nag li ñuy ñaan ci yàlla ñu def jëf gu ñaaw gi yàlla weer leen te gouvernement bi na fi jug ndax fii mu nekk réewu jullit lañu nekk ku rey nan la rey def lu lislaam wax ku sàcc noonu dagg sa loxo yaa may déglu ñii di mars si mbedd mi lii la ñu war a def mars rey gii la ñu war a def mars yaa may déglu lii la war a def mars ndax lii metti na fu metti yem rey ji moom dafa war a dagg dafa war a dagg dagg moom daf ko war a def ndax rey bi metti na tor ku rey daal noonu la rey def ko la au poto ñëpp di la xool wala ñu fajal suñu bopp rek. sama rakku jëkkër la mooy seen caat. lan ñu mën a wax ci moom. Ah, ku baax la de. jëf ji dafa metti torop ñu bëggoon nga wax lan ngay wax état ci lu mel nii. xanaa mu def li yoon xool yoon ñu xool yoon parce que lii mënul continuer nangu sa alal rey la amul sens mënuma ma bàyyi ma jóg. Ibrahima ñoo bokk ndey ak baay daanaka sax sama doom la ndax bi mu nekkee xale la ma ko sama yaay may sama rakk bu baax la bu yaru bu jullite waaw. bëgg ndam weesuwul mu dem ba fi nga xamante ni moo di Tamba di fa daan dooleem. waa bi muy dem euh, en 2010 la dem. ci la demoon foofu fa la doon liggéey léeg day dem Tamba Bakel def Kanel ak Kidira ak yooyu waaw. ñu ne def nañ ko jëf ju ñaaw ji lan nga yëg sa biir xol. waaw man euh, jeudi jeudi laa toog sama grand frère woo ma ne ma sama Ibrahima jabaram daf ko woo ne ko dañ ko doon agressé ma ne ko fan mu ne ma Bakel ci àll bi ma ne ko agressé mu ne ma waaw ma ne ko léegi ana ma mu ne ma ah nee na de mi ngi foofu. léegi mu daal di koy woo ma daal di koy woo téléphone ma jot ko ma ne ko Ibou dégg naa dañ la doon agressé mu ne ma waaw man ne ko lu mu demee mu ne ma ah man de dama doon dem rek après bi ma crevé ma wàcc di defal sama ru si la ma juróomi xale góor ñëw laaj ma li ma yor ma ne leen yor ma xaalis ñu dóor ma loxo jaasi si loxo après bi ma dóoree loo yore ma génn xaalis bi jox leen 31000 la bëriwul nee na mu joxaat leen téléphone am ñu toj téléphone bi. biñ ko tojee ubbil sa oto mu ubbi li nekkoon ci oto bi yëpp ñu jël ko biñ ko jëlee ba pare nag si lañ ko dóor jaasi si bopp ma ne ko yaa ngi tane mu ne ma maa ngi tane sant yàlla loolu na dem. après jot na fi dem hôpital. waaw demoon hôpital bañ ñëw lox bi après mu dem kër ga mais jotu woon def rajo yeeg yooyu. jëf ju ñaaw ji lan ngeen cee wax li nga xamante ni moo di nguur gi. li ñuy wax nguur gi ñu ngi koy wax rek mu jël si ay mesure li ñu war a marche lii la ñu war a marche. buñ la né ni dañ ko ray do ko xam mais fokk nga am kula djégé nga doog xam nan la mel ibu dafa gañu à la fleur de l'âge à la fleur de l'âge la gañu baye fi jabar ak ñaari doom li lañu wara marche. Euh, soxna Ibrahima yaayam suñu ñaari ndey ño bokk ndey ak baye ñu may ko suñu doom bi mu nekk doom ci kër gi nekk suñu fu mu ñu féetoo woon yal ñu fa yàlla féetoo moom it yal na ko yàlla xaral àjjana ñun am nañu lu ñu metti ndax ki xale la dem na ci xale eh, ñun de kenn ci famille bi kenn nelawul kenn naanatul waaye de dañuy ñaan nguur gi ci barke yàlla ñu dimbali ñu ndax lii dafa metti li nga xam ne yonent bi ci boppam dañ koo signé ñu di ko bàyyi ci ginnaaw ñun de loolu lañu bëggoon ñu def suñu ko doon def xëy na dina woyof ku rey nit ñu rey la ku sàcc ñu dagg sa loxo bu ñu ko doon defte kon ñun suñu Ibrahima du dem ndax Ibrahima dem na ci xale nekk suñu yaakaar man mii wax ak moom yom nii ci man la demal da doon toog ba weer dee mu jóge fi lu mu di ma mu ñëw lu mu yor di ma ko jox ñu di ko yaakaar eh, fu mu ñu féetu yan na ko yàlla xara àjjana ñun de am na lu ñu metti am na ñu yaakaar ci moom ah lii de metti na lii dafa metti foo ko natte rek passé na fa ngeen baal ma ak lii laa doon wax. Dakar instant rek yaa ma gën a xam. man xaw ma ci kaw la jugee. man dama sais pas rek gis len ba paré fo tourner Dakar instant ngay gis. mais lolo ëpp na Dakar instant ci kaw ci kanam rek. Ah, Dakar instant caméra bi ni na trop ba mënuma xol bu baax pis pis di Dakar instant ngi suivre ci page page YouTube Dakar instant bo tour rek day lool chaque instant c'est le bonheur. monsieur le maire Dakar instant waaw c'est une première mais ni ma gisee Dakar instant fay prouver ne ko Dakar instant ci kanam la jëm inshallah. Ga ñu ngi koy suivre Dakar instant lan leen lay wax na gaay dem abonné leen bëgg ci si actualité Ñew leen ci Dakar instant. C'est ligue rafet na trop machallah. allah. lo wax ci wa Dakar instant. waaw Dakar instant nag moom ñoom dañoo xew ndax bañ na ko chaque jour bu ma yéwo